ko ginnaaw gi ñu bàyyi ko tuuma yiñ tegoon ci kawam it yu bari rot euh, wala lépp ëllëg euh, ci altine ji la nuy euh, fàttaliku at wala ñetti at ginnaaw bi mu eh, génnee eh, ci teg loxo gi nga xam ni tegoon nañ ko ko loxo loolu nag tey sabab waxtaan wi eh, ñu bëgg am ak moom ngir dellusiwaat ci xew-xew boobu waaye itam jàngat tolluwaayu mbirum terrorisme ci àddina rawatina ak ci réew mi di Sénégal Imaam ñu ngi lay nuyu di la dalal ci dem ak tey am mbégte lool sekk ak yow waxtaan wi. ok jërëjëf soxna si ñu ngi lay nuyu di la wax ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam. di jiital bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin mm-hmm. allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi. ñu ngi nag mbokki auditeurs yi yëpp. ci biir réew mi ak ci réew mi di ñaan borom bi tabaraka wa taala mu def ko ci réew mi mm-hmm. def ko ci àdduna bi mm-hmm. amiin lépp loo xam ne itam luy tiitaru askan yi la yàlla jeexal ko tàkk ci àdduna bi yàlla mën na ko yomb na ko yàlla na ko yàlla def amiin amiin imaam ni ma ko waxee ëllëg caltina ji lay doon ñetti at ginnaaw bi ñu la teggee loxo ginnaaw it ñetti at yoo xam ni euh, téye nañ la ko euh, ci wàllum terrorisme ndax mun nga ñëwaat ci xew-xew boobu la waraloon ñu teg la loxo ak lan la ñuy joxe woon niw lay waaw jërëjëf soxna si kontaan lool ci laaj bi ndax waxtu wi nga ko defee mooy ku ne xam na ne ëllëg mooy ñetteelu at bi comme ni nga ko waxee. Mm. Euh, bu nekkoon benn xew-xew boo xam ne lëmbee woon na àdduna yëpp <coughs> daanaka su ma yeboo ne amul benn réew. Mm. amul it benn journal ci journal yi nga xam ne danay génne ci àdduna bi. Mm. lu dul ni ñu ngi doon topp di yittewoo eh, mbir moom muy journaux yeeg réseaux sociaux yeeg. ci gàttal amul lenn luy joxe xibaar ci mm. àdduna bi lu ne euh, nekkoon nañ di yittewoo xew-xew boobu. Mm. mu nekkoon na xew-xew boo xam ne amplifié woon nañ ko réer ko lool fa tabarakallah mm. ba daanaka sax mën naa wax ne terroriser euh, sunu mbokki sénégalais yi yëpp. ba kenn ñemewu cee wax. walla ñu néew boog ñoo ci ñeme woon a wax. muy jàmbaar yi nga xam ne xàmmee nañ dëgg ak neen euh, di ci rendre hommage nag ñoom ñi sunu wëllëre sunu mag Sidi la Niass yal na yàlla subhaanahu wa taala yokk ay leeram ca bàmmeelam bokk sëñ Bamba Ndiaye ak ñeneen ñu mel ni ñoom waaye dama jàpp ñaar ñooñu rek comme ñoom ñoo jiitu di leen ñaanal mm. ak suñu mbokk Saliou Sow mm. ak ñeneen ñu mel ni ñoom ñu bëri euh, suñu mbokk soxna sa Zeynab mm. te baal ma nag soxna si waaw xam naa maa ngi xaw a dem ci loo xam ne du laaj waaye dafa du lu mënta ñàkk. amul solo amul amul benn. ñu mbokk Zeynab Fall yal na yàlla dolli ñoom ñëpp dañoo jiitu moo tax ma ma ràññee leen. tudd leen dëgg la dëgg la amul benn ak nag mbooleem mbooleem jàmbaari diine yi nga xam ne ñu ngi ci biir réew mi. Mm-hmm. Eh, di dund ak ñun. ci organisation islamique yeeg tariqa yeeg ñëpp fa tabarakallah mujj gi dem nañ ba xam ne lii ndeke ni ñu ko doon waxee. Euh, ak na mu amee soriwoon na lool. Mhm. ñu sumbandoor na xeex bi ak yéen ñi nga xam ne yéenay journaliste yi. Mhm. def ci benn liggéey boo xam ne bu mucc ayib la. Mhm. Euh, mën nañ ko tuddee ne contre révolution contre révolution lañ ko tuddee woon wala contre révolutionnaire yéen ñi nga xam ne yéen ci doon taxawee. ndax benn mbir bu yëkkati woon ngeen dem topp ko gëstu ko saytu ko ba xam ne lii ni ngeen jóg ànd ak activiste yi. mënuma tudd nag benn activiste bàyyi ba ci def ndax dañoo bëri. waaye fa tabarakallah xew-xew la boo xam ne euh, yéeme na soxna si. Mm-hmm. di dañ nag di ko fàttali ko. Mm. bu ko defee nag la nga xam ne mooy sabab bi moom nga ma laaj. Mm-hmm. Euh, sabab ba ba tey jii mbir la yoo xam ne yu yu fulul la. Mm. yu fulul la yu lëndëm la ndax man nii di wax ak yow de euh, ba fii ma toog. Mm. damay toog di xalaat ci lan moo sabab lii. mu dama jaaxal waaw ba yàlla xam na ko ba fii ma toog nii. Mm-hmm. dafay toog léegoo léegi di xelaat waaw lu toll ni état ak di euh, ko yàlla jox ci euh, renseignement mhm. euh, yu ko nekkal partout ñu ñuy jékki-jékki rek dugg ci benn mbur boo doo xam ne nii la lëndëmee mhm. waaye nag bi may liir di liir ba àgg ci Jeune Afrique mhm. gis mu bind moom Jeune Afrique ba ma ko gisee sax dama ko jox samay samay avocat ñoom ñëpp tabarakallah pool d' avocat bi nga xam ne ñu ngi may déglu. Mm-hmm. Ah, ci maître Moussa Sarr suñu jarbaat jiite woon leen. Mm-hmm. wallaay ndeysaan muy nekk ay jàmbaar yoo xam ne man ci laa demee ba découvrir lan mooy métier avocat. Mm-hmm. Eh, amoon yéene lool ne su ma ay eh, su ma ko mënoon ba delluwaat ndaw comme man défendre dëgg rek moo ma yitteel. te gis naa ne dëgg ña koy défendre léegi ñu ko man mooy avocat yi ndax ñoom la ñu xajal ci cour yi. ci tribunaux yi. mais mën a taxaw di wax plaider. moo tax ma soññu xale yi na leen métier moomu na ngeen ko gën a yittewoo bu baax. Hmm. pour défendre dëgg. Euh, soxna si bi ma liiree article boobu. Hmm. ci doo door a xamee tuuti ci sabab yi. Hmm. ndax ndax Jeune Afrique dafa bind ne am na benn sëriñ daara bu nekk foofu ci Kaolack. di tuddee boppam ne day jàngale alquran waaye ay quelque xale la yor. mbubboo leen. maanaam minimiser lool ñu suñu suñu suñu daara ji. te yàlla xam na ne daara jii ma yor soxna fi. Hmm. bokk na ci daara yi ëpp yi ëpp euh, nombre ci ci région Kaolack loolu mu yéem ma. Hmm. bi mu waxee loolu ne quelque ay xale fa nekk mu latoo leen bu boo mu teg ca ne moom waa jooju euh, dafay dafay tukki lu bëri di am ay rapport ak relation ak ñi nga xam ne ñooy terroriste yi nekk ci sous région beeg àdduna bi te man mosuma te man tukki du sama mbir. Hmm, doo tukki. déedéet man du ma tukki maa ngi fii ci Sénégal depuis ma jeexal sama njàng ci Mauritanie ñibbi si. Hmm. dew ma fenn Mali gii gën a jege sama tànk jëm fa <laughs> ma fi ma fi Niger Nigeria ñu ne ministre bi ca jamono booba hmm. wax na ne génn naa lu def naa lu ëpp euh, ñaari téeméeri sorti di ko toog ñoom dara amu ci walaay dara amu ci mu jaaxal ma mais yow bi ñu lay teg loxo bi ñu ñëwee di la jàpp si ci ci lan la ko teg ba lan nga jàpp ni moo waral dëgg dëgg dëgg xëy na moo sooke mbir mi. Ah, moom laay bëgg a wax ni. Mhm. Jeune Afrique boobu nee na France dafa détaché woon benn benn benn équipe spéciale boo xam ne bi ñuy ñëwee fii ci Sénégal dañ leen a rattaché ci ministère de l'intérieur Abdoulaye Daouda Diallo moo ko jiite woon jamono booba. Mhm. Jeune Afrique mooy bind li ma lay wax de. nee na ñu def nañ fi lu mat six mois di liggéey ak ministre de l'intérieur euh, ci lañ demee nag ba am ay renseignement yu leer ñoom door maa jàpp maanaam teg ma loxo hmm. ma nekkoon France moo nekkoon base u téye ma téye man nag jaaxalu ma ndax sama samay discours ak samay conférence euh, dafa nekk maanaam mënuma ko tuddee anti système waaye système bi moo nekk anti Aliou ndaw <laughs> waaw anti imam ndaw bu ko defee nag man toujours damay tuddee ne man maay anti système may leen déedéet système bi mooy anti Aliou Ndao ndax Aliou ndaw dafa nekk ci li ko boromam sant mm. te boromam moomoom suuf si moom ko moom jaam ñi mm-hmm. kon santaane mooy li am légalité mm-hmm. bu fekkente ne nag am na ay force occulte yu bàyyi ko ci bitim réew ñëw look ay force occulte ci biir réew mi contre Aliou ndaw kooku dañ koo tooñ ci biir territoire am fi juddoo màggee fa yaroo fa di ko jàngale di ko exercer métier légalement tooñul kenn mosta dem fenn lënkaloowul ak benn force boo xam ne bu jaarul yoon la daara yi ma yor nii ngay gis nii ci mbay lañuy dund ak sàmm ñun amuñu financement buy koo ci benn gox. Hmm. waaye nag jaamu yàlla yu baax yi tabarakallah yal na yàlla yokk seen man-man. bàyyiwuñu daara ji. Hmm. kon kooku buñ xëyee xëy tuumaal ko ne dafa jël lañ ko loolu yële. Hmm. man dama naan mbir mi France la. ak sunu gouvernement ñooy responsable ñooy sabab yi tax li amoon am. te niñ ko defee itam ñaaw lool ba ca dayo baax. mën nga caa dellu siwaat bu baax ndax euh, ñu ngi ma ñëwal ay weer. Euh, deux heures de matin trois heures de hmm? ñëwee dajji bunti kër gi terroriser xale yi fa tabaarakallah. dañoo dajji sa buntu kër. dañ ko dajji. kon fekk lu nga ubbi leen déedéet. ndax man dama jàppoon ne ay ay ay ay samba booy. Hmm. ñoo ñëw pour pour pour attaquer kër gi moo taxoon man ma jàpp eh, comme sama néeg dafa nekk ci buntu kër gi. Hmm. ma di am na fu ma leen di xool di leen bàyyi xel. Mhm. foofa laa taxaw toog fa di leen bàyyi xel di ma leen gisee ñu daj buntu kër gi ma jóg taseeg ñoom. Mhm. ci la ne ma euh, euh, ci la gendarmerie. Mhm. ma xool liñ sol gis ni dañu ci gendarmerie. keroog sax naa leen aw moon si ki sàkk ne ay sàmba booy ngeen. daj buntu kër gi terrorisé xale yi am na ci sunu màggat mu fa nekkoon ndeysaan gis nga guddi googu ci la ña ci la te doxee teqalikoo sagoom ba ni mu génn àdduna hmm? waaw xelam fa la do doxee rek naaw. Hmm. àndatu àndatu la xelam. ndax tiitaange ñu nekk mbir moo ndax tiitaange ak eh, ñaawteefu eh, lu gis lu mosul gis ndax jékki-jékki rek ñëw ci borom kër terrorisé ko. mënoote hmm. eh, ko ci kanam njabootam. loolu histoire du ko fàtte mukk te mu ngi xewee ci régime suñu président de la république Macky Sall. ak ministre bi nga xam ne moo yor yoroon jamono booba l'intérieur muy Abdoulaye Daouda Diallo ak ñi nga xam ne nag ñoo yi saytu woon mbirum renseignement ci jamono booba ba taxawee jëf yi nga xam ne e, mën nañ koo tuddee ne ay jëfi terrorisme la moo tax man toujours damay wax ne terrorisme am na fii ci Sénégal hmm. ndax man dañ ma terroriser hmm. terroriser sama njaboot terroriser samay am di jàmm terroriser réew mi yëpp nag ba kenn ñi mu ta wax hmm. man jàpp naa ne sabab bi euh, du lenn lu dul e, discours yi ak xutba yi moo leen déranger ndax am na bi ma yóbboo campenal di mhm. ma laaj dama mhm. doon laaj laaj ne ma ne ma ndax bu say mbokk sàkk woon ci yow nga bàyyi say conférence ak say xutba ak say njàngale pour ñu génnee la ndax yow dañ ci ànd ma ne ko man aw ma mbokk muy sàkk loolu mhm. ndax sama mbokk yi ma am yëpp métti nii ma métti woo muy jàngale alquran ak yeete. Mm-hmm. ni ma ko apprécier nu ko raw lañ ko apprécier way gëm rek laa bokkal. Mm-hmm. ma dee ci lii moo leen gënal fuuf mën ne damay deltu gannaaw mu ne maa ma ne ko yàlla xam na ko kon moo ma xamal ne discours bi la moo leen eh, eh, eh, yéene. Mm-hmm. daan naa ko wax ne ci biir campagnat ji ko waat ci yàlla ne. fii ma toog ci biir campénal su ma fa fi yàlla la danaa fi continuer di jàllale message bi. Mhm. su ma génnee damay continuer di jàllale message bi. ñu des ci guddi googa mhm. imaam guddi ga ñu lay teg loxo gannaaw ba nu la defee noona euh, lan lañu la wax ndax wax nañ la la tax ñu ñu ñëw ak li tax ñu jàpp si la wala kana leen yi waxuñ man leen. nan laa jàpp rek yóbbu. waaye nag wax naa sama soxna yi ne leen. Mhm. nañ daan jàppee yonent yi di leen solal ngir lan seen mission. yàlla xam na ne mission booba képp ci laa nekk man Aliou Ndao kon gëm naa ne loola mooy sabab bi hmm. xeex alquran ak ñuy jàngale alquran kon booba xamagu leen sax lu xew xamuñ lu xew kenn ci kër gi xamul lu xew hmm. mosuñ yónnee convocation ma jëf di ko biyaaree doy na war hmm. noonu lañ ma jàppee yóbbu ma alors téye ma fa lu ay fan yu yàgg yàgg yàgg ci façon yoo xam ne. fan lan la yóbbu ñu ma yóbboon ci. naka laa maa ngi fàttali turu gendarmerie bi de. waaye mu ngi foofu ci Dakar rek xam nañu. mu conk déedéet. caserne am na ci section de recherche. exactement. léegi bi ñu ma fa yóbboo néeg bi ñu ma def <laughs> néeg la boo xam ne dafa am ay branchement maanaam ay sorte d' enregistrement yu ñu fa te yokk ay salir ay salir lañ enregistré seen seen yuuxu yi. Hmm? amplifier ko nga xam ne néeg bi amul courant amul dara benn mat la bu bon lañ ko teg bu gat boo xam ne encore mat la bi sax ay cuir la maanaam ay ay ma ne cuir sax euh, cuir mais ñun tërasi taw su la hmm. <laughs> ci biir xamee nag ne jóg jot na pour euh, lii nga xam ne man maa ko dund vivre ko léegi loolu la da doon yuuxu ci sa nopp yi day yuuxu vingt quatre heures sur vingt quatre ci sama nopp yi boole ko nit bu lëndëm boo xam ne amul dara ci lumière. Hmm? yàllaa ma protéger protégé mënoon naa fa jóge ñàkk ay bët. guddeeg bëccëg ci lëndëm ngay ne. lëndëm ngay nekk ci ci sabi salir yooyu ngay nekk presque euh, doo doo mën a nelaw loolu ko noonu nag lu ni mel am na ci Sénégal te dañuy wax ne suñu loi yi dafay interdire. torture lépp loo xam ne sorte de torture la. ma ne loolu buñ ko waxee bind ko it nekkut ci li ñuy jëf lii moom laa ko dund. Hmm. dañ ci déggee nag ba commencé seen enquête laaj mooy yu bëree bëree bëri mënu ma caa jaaraat euh, liñ ma njëkk laaj mooy ndax xam nga loolu andi fii may leen déedéet waaye moom leer na ma ne rek victime laa kuñ tooñ laa. Hmm. waaw ci lañ ma waxee nag ne ma dañu nekk créé benn euh, cellule fii ci Afrique. pour war a bëgg am mën ay action terroriste ci ab sous région bi kudduma ay tur <laughs> loolu day war man ma leen maa ngi door a déggee loolu ci yéen ñi may enquête kon xam nga loolu mooy amut hmm. sama samay ordinateur rek yëpp yi nangu woon def nañ ci gëstu bu nekk ñoom waaye mënuñ laa won benn trace boo xam ne am na sama diggante benn côté buy mën a action terroriste mm. heureusement alhamdulilah rabbil alamin sama lépp dafa leer. fekk mm. sama mm. ñu ne it fekkoon nañu ci yow ngànnaay fekk ci yow téléphone cellulaire ay ay film terrorisme ak ñoom seen ci sa ordinateur loola yëpp déggoon nañ ko fi ba ñu bari jaaxle woon. exactement waa ñu bari jaaxle woon dara amu ca. am naa nag comme en tant que damay gëstu. sama ordinateur damay gëstu gis nga ni ma doon gëstoo ñi nga xam ne ñooy terroriste yi. Mm. di documenté ci ñoom noonu laa doon gëstoo mbirum Borma noonu laa doon gëstoo suñu mbir yi nekk fii ci Afrique ci sous région bi. Mm-hmm. ba nga xam ne mooy ñun ci Centrafrique. Mm-hmm. fenn fu ci nekk dama ko wutal rubrique ak ñaawteef yi nga xam ne état yi ñu ngi koy def. Mm. yooyu moom la ñuy tuddee ne ay dañoo fekk ci man ay film moo tax keroog bi may laaj ci biir euh, projet bi. Mm-hmm. ne ma ndax mën nañ teg lenn ci film yi ñu fekk ci sa ordinateur. may leen yan yen ngeen bëgg teg ñu ne ma yi aju ci wàllu Daesh may leen su ngeen paree dangeen ngeen teg yi aju ci wàllu Borma. Mm-hmm. su ngeen paree encore da ngeen teg yi aju ci wàllu Centrafrique. Mm-hmm. bu dee loolu bismillah ba ñu xam ne man sama gëstu dafa général mhm. en tant que jàngalekat en tant que conférencier mhm. koo xam ne dañu koy laaj muy tontu mhm. war na documenté wu ci lépp luy daw ci àdduna bi voilà le problème lu aju ci wàllu ngànnaay beeg bi yëpp ay sos la <laughs> yëpp ay sos la ñemewu ñoo génne ngànnaay ba ngànnaay ba benn pistolet bu yàqu la boo xam ne ñu ngi ko jëlee ci sama euh, euh, euh, pañe bi may def ci biir bi nga xam lu ma nangu ci xale yi ci laa koy sànni jëlee wuñ fa fital jëlee wuñ fa satellite boobu ñu tudd cellulaire bi. Mhm. mos mosuma ko am. somme yu colossaux yooyu nga xam ne colossal yi nga xam ne waxoon nañ ne maa ngi ci ci xaalis. Mhm. jëlee lañ fa jëlee lépp daal matul trente mille. Hmm? waaw moo tax bi ma déggee ay milliards même bi ma demee ndeysaan ci euh, rëbës ñu bëri dañ ma jàpp woon comme milliardaire boo xam ne. <laughs> jàpp ni jeexaloo dara. dara lay ndeysaan moo tax man film bi def ma ñëw mais nag histoire dana ko retenir te yaakaar naa ay mbind yu bëri dana ci wàcc ca kanam incha allah. Mm-hmm. yoo xam ne danañ ko euh, garder pour euh, future génération yi ñëw. mën mm-hmm. a xam ne Sénégal jaaroon na ci état bu mel nii. Mm-hmm. waaw incha allah. imaam ñetti ati kaso yi noo ko dundee. waaw sant yàlla nag ndax ñun comme dañoo jàng diine di jàngalekat yi diine. Euh, lenn duñu bett ci loo xam ne lu ñuy dal ci yoon wi la dañoo doon ñoo xam ne ñoom la yàlla yónni woon ñu doon leen tuddee al anbiya wa rasul di yonent yi salawaatullahi wa salaamu alayhim ajmaïn gis nañ li ñu daj ci ay coono ñenn ñi dañ leen a rey ñenn ñi ñu dagg te leen sax reyin ñi gën na ñaaw mm-hmm. ñenn ñi ñu lakk leen ci sawara ñenn ñi ñu tëj leen bañ dee mm-hmm. ba mu jeex ko defee kon ku doon ñooña mm-hmm. Euh, yu mel noonu da koy bàyyi xel. Hmm. daan naa ko wax kon sa kaw. bu baax bu baax bu baax bu baax dama ko wax sax sama njaboot. Hmm. yàlla xam na ko. néeg bi may wooyee nii soxna si nga xam ne ci ci ma fekk ci léegam. Hmm. daan naa ko wax ne ko man bëgguma miinal sama bopp dara ci xeetu luxe. ndax damaa jaar ci yoonu ñoom imaam Ahmad ibnu Hanbal. ñoom yoonu imaam Malik rahimahullahu tabaraka wa taala. yi nga xam ne dañ leen a tooñoon. xëy xëy takkal leen ni pot tij leen ci kaso di leen torturer mu ne ma ne ko damaa war a miinal sama bopp coono ba ëllëg su ma àggee ci état bu mel noonu. Mm-hmm. fekk na sama jëm man mii tàggat naa ko. da mm-hmm. jeex na moo tax amoon benn problème. Mm-hmm. am na benn psychologue bu ma mos ñëwal. Mm. xam naa pour seet tester sama moralité ba xam fu ma fu ma toll. foofa ca kaso ba kaso ba foofa booba maa nga nu mu tëjee jàpp ma tur nag bi ñu waxtaanee mu di ma laaj samay problème baa aw ma problème psychologique yi demee noonu ma ne ko man mënu ma am problème yooyu. Mm. ndax dafa am ñaari facteurs yoo xam ne mu ne ma ne ko ñoo may protégé. mu mm. ma ñaari facteurs yooyu ban la ban ak ma ne ko bi ci jiitu mooy damaa gëm dogal. dem mm. naa ne lépp lu yàlla dogal ci dundub imaam Aliou Ndaw ma ne ko ma faaw moom. ab nag mu ne mu ne ma ma ne du xëccoog yàlla ci dogalam da koy nangu. Mm-hmm. moo tax ñun. waxuma la nangu dogal bi sax waaye dañ ci am satisfaction. dañ dañ ci kontaan ci lépp loo xam ne suñ borom dogal ne ko ci suñu dund. loolu mooy arriba bil qadaa wal qadar ñaareel bi mu ne maa ma ne euh, suñu diina daf ñu jox ngànnaay bu mat bu ñu tuddee asabru gij ñu ci ay tiyaabu yu rëy euh, muy muñ patience endurance mm. moo tax lépp lu dal ci suñu jëmm mu ne am ne ko attan nañ ko ma ne ko nag am na nag beneen ci facteur bu ëpp ci solo mu ne ma ma ne ko mooy di xaar ngërëmal borom bi tabaraka wa taala ak dajeeg moom am payam muy aljanna yàlla ñu ko yàlla wusal ñu moo tax ma ne ko ñun am problème te maa ngi wéttali ko fii ci mhm. ma nekk man rek maa fa nekk mhm. waaye maa ngi wéttali ko ah, dañu laa beroon dañ ma ber dañ ma man rek ak sama cellule mhm. cellule boobu xam naa nañ ci ñëw ci kanam. incha allah néeg ba waaw ko moom kay dañ ciy des. néeg ba nu mu meloon gannaaw ndorteel ga na mu doyee woon waar ñu njortu ne xëy na foofa it yombutoon. déedéet mosul yomb ma mot li troisième point boobu ma ko doon wax mm-hmm. eh, ma ko doon waxee ma ne ko damay damay wéttali ko borom ci biir cellule bi. Mm. man gëm naa ne maa gi ànd ak moom fu mu mën a nekk. alam tara anna allaha ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al ardi ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala xamsatin illa huwa sadisahum wala adna min dalika wala aksara illa huwa maahum ay kaanu ma ne ko fu mu mën a nekk rek maa ngi fa yàlla mu sirra wa axfa di ko wéttali ko ma ne ko nag wéttali yëpp boobu moo ci gën a neex boobu moo ci gën a mag ñaareel bi maa ngi wéttali ko ak mbooleem koo xam ne ku baax la muy malaaka ya nag di nit ñu baax ñu fi jiitu woon ñëpp maa ngi wéttali ko ñoom fii ci biir cellule bi mm. te maa ngi wax ak sama borom vingt quatre heures sur ndax maa ngeeg kaamil boo xam ne jamono bu nekk waxi borom day ci nekk su ma mhm. waxee mel na ni yàllaa wax ci mhm. kaddu borom bi lay wax muy dugg ci sama xol bi di dugg ci sama xel mi ma ne ko ah, mu ne ma ne ko kooku mënul wéet mënul am problème <laughs> psychologique boobu ku ko yebal waaw moom nag nee na ma dafay liggéey ak état ñoom dañu yor prison yi di wër mhm. euh, prison yi di waxtaan ak jëtëni yi sama genre bi xam naa peut ci cadre boobu la fa ñëwee léegi ñu ñëw euh, ci condition détention bi néeg ba fañ la dencoon. voilà néeg bi ñu ma dencoon soxna si dafa dafa comme li ma li ma la wax noonu ci gendarmerie. Mhm. néeg bi ma nekkoon ni dafa amaat ay euh, ay façon enregistrement yoo xam ne dañ ko def ñoom préparé ko lu yàgg. waaw hmm. ah, lu yàgg sax daf ma yëm sax euh, daf may yëm enregistrement samay jaar jaar yu bëree bëree bëree bëree kon yàgg nañ laa topp. yàgg na lool ay ay ay at yu yàgg la <laughs> am na ci yuñ ma tegal yoo xam ne bi biñ ma koy bi ma koy déglu dafay ñibbiwaat ay weer mille neuf cent quatre-vingt-treize hmm? waaw quatre-vingt-treize quatre-vingt-quatorze jamono boobu ci la ci laa doon dox pour ñu créer eh, jamaatu ahlul qur'aan al karim wa sunna pour def si ndaare yi benn mbootaay hmm. yañ ci daan def ak yépp dañ ma koy tegal samay conférence surtout nag conférence yi may def sur la laïcité et sur la franc-maçonnerie mondiale di ca teg nag kàddu yu gën yu ko gën a ñaaw loolu da ñu lay tee torturer kon psychologiquement hmm. beneen bi ci gën a yéeme mooy néeg bi dafa amaat euh, gannaaw enregistrement yooyu euh, xeetu yoo xam ne dañ ko dañ ko dañ ko jokkale ak néeg bi saa yu leen neexee rek ñu pomp ko ci bi kenn du xeetu hmm. yu bon a bon a bon yoo xam ne mar d' itali. genre tuyau moo fa nekkoon kon. déedéet doo mën doo mën a xam fu muy bàyyi ko. Hmm, da ngay jékki-jékki rek xet gi jolli. jolli ci biir néeg bi gas ko del. bi ma nekkee ndar def nañ ko ba jour boo xam ne weñ yi ak seen bopp dañoo dee ci biir néeg bi bëri. Hmm? waaw bi bëri setee ma xool weñ bi ñu ngi ñu ngi paam. waaye nag euh, comme am na direction ma woolu directeur mu ñëw astafirullah dama ko woolu ñu ne ma dafa tukki. Hmm. nekku fi ma balayee weñ yi yëpp dajale ko ci benn AGT teg yendu weñ yi deewaat deewaat ba ngoon ma delluwaat balewaat yépp defaat ko ci AGT teg le lendemain weñ yi gën a dee hmm? te booba yow xet gaa ngi lay xeeñ waaw maa ngi ci néeg bi xet gaa ngi dolli xet bi xetu lu mu lan lay nuru kenn xamul ban xeetu xet la xam naa ne moom xet bu ñaaw la bu bon la boo xam ne dañ koy pomp ci néeg bi bi bi directeur ñëwee ca gannaaw ëllëg sa ñu war na ko mu ñëw ma génnee weñ yi yëpp wan ko ko hmm. sàkk ci moom nag ne ko weñ yi dama bëgg ñu yóbbu ko def ko ci laboratoire seet ba xam lan moo leen rey hmm. mais ba fii ma toog ak yow dara amul suite hmm. ñu muy déglu bu baax xam nañ ko booba wëcc naa ci guddi gi wëcc yoo xam ne am na benn détenu boo xam ne maa ngi moom ñoo fa bokkoon nekk ci mhm. ñoo takkaloo néeg bi mhm. man rek ak sama néeg mhm. waaye moom mu ngi nekkoon takkaloog man beneen néeg sunu xale la bu ñuy wax Baye Saliou Ndiaye euh, wàcc moomu dal ci sama yére yéen yëpp moom lañ moom moom moomu ko doon fóotal moo tax kooku moom nekk na ci benn témoignage témoin boo xam ne bu bu bu bu pataan la euh, bi ñëwee mu woon ko weñ ndeysaan mu ne ma moom lii daal xamut naka la xamut xamut ci dara. Hmm. man nag xam naa ne euh, mën na nekk mën na ñàkk a nekk mën nekk ndax mën nañ am ay éléments yu leen di defal luñ bëgg ci biir prison bi ci du ko xam. du ko xam. kon hmm. oh, loolu c'est bien possible. yow da jàpp ne dañ la doon bëgg a rey ni ñu ni ñu ni weñ yooya deewee. ah moom ci sikki sàkk man. xet ga sonaloon na la. ba mu ëpp. directeur bi ne ma est-ce que duwul ne néeg fi nga loolu nii dafa am euh, douche douche boobu mën naa am xet gi mooy ñëw mën na ko douche mu ne ma mën na ko weñ gi foofu la ñuy dund. Mhm. weñ douche rek la bëgg. waaw xetu moom. mën na ko xetu douche rayul weñ wax nga dëgg de yéeme na loolu nag bokkul ak euh, torture beneen boo xam ne ay wax la yu lay wax ngay dégg di la saaga foofu laa mën a gisee ñoo xam ne ñoom saaga rek la ñuy def. ku la doon saaga mënoo leen a gis. <laughs> ah doo leen gis. déedéet dafa am benn communication boo xam ne ñoom ñoo ko préparé néeg bi diggante néeg bi ak beneen mbooloo boo xam ne mënoo leen gis. Hmm. waaye yow loo wax ñu ngi koy dégg ñoom it ñuy wax yaa ngi koy dégg. ah. waaw wax bu ñaaw bu sa xel daj rek. Eh, daf da nga koy dégg moo tax bi ma génnee <coughs> gis euh, WhatsApp yi xew réseaux sociaux yi ñu ciy saaga ay ay responsable laa ne waaw. maa lii du ne fay fayu goo xam ne yàlla moo koy fayul ay gaayam la hmm. ndax gannaaw bu ma la phénomène non ci biir sax la phénomène Assane Diouf xew hmm. ndax dégg naa Assane Diouf moom moom itam daanaka ci sama mbir la doon wax hmm. di ci révolté ndeysaan di ko ñaawlu bañ mujj ko yàqal liggéeyam jëlee ko Amérique andi ko ba tey mu ngi Sénégal taxe ko terroriste ma ne waaw mbaa du saaga yu ñaaw yi ma doon saaga ci biir euh, barab ba moom la yàlla jël ay xale samp leen ñoom itam ñu taxaw temm rek pour delloo saaga yi te yëguñ sax ni xaw yëguñ na ñu ngi may saaga waaye mbirum rek ci la soxna si. lay saaga ak di la wax wax yow loola noo ko dundee. kilifa gu toll loolu man ni ma ko doon tuddee rek benn ba ci ñëpp mooy nattu la ñaareel bi mooy euh, bëgg nañ la torturer psychologiquement pour nga nga perdre sa sa connaissance. Hmm. mu ji ak dof. ma soo craqué ma soo dem ba sa xol jeex ba nga sës. jeex na voilà. Hmm. fekk na nag xolub jullit moom dara mënu ko jeexal. mësoo craqué kon yow mësoo dem ba hmm. yëf yi daal jàpp la. déedéet déedéet amuloo ko faal dafa may def sax man. Hmm. te léegoo léegi nag da ngay bëgg ay trois heures de matin. ay ganaar yuy sab ci sa pegg sa njëganaay bi. waaw léegoo léeg bu ñu dindee sabu ganaar bi mën nañ indi beneen beneen sabu maanaam lu mel ni ab dawkat. xam nga loolu buñ la koy def te xamuloo fi technologie toll bañ waaw hmm. ak fi technologie toll ak niñ mën a canaliser kàddu hmm. di ko teg fu leen neex yow moom yaa ma gën a xam loolu waaw xam nga ne kàddu mën nañ ko jël yebal ko hmm. mu dem ca miir ba su leen neexee ñu yebal ko mu dem ca sa gauche droite ba tegee ci sa dënn loolu boo xamul da ngay jombi léegoo léeg mu mel ni ay picc yu bëri lañ yebal wala jékki-jékki mel ni benn bomb lañ taal ci biir néeg bi fekk lee ak ñu daw loolu nag bokk nag rayon maanaam ay rayon yoo xam ne dañ koy yebal vingt quatre heures sur vingt quatre ci sa jëmm ci rayon wi lan ay rayon yoo xam ne électrique la ay coup électrique yu ñu lay dóor muy xonq ci sa kaw muy dal dal ci sa kaw gis nga mbaxana mu weex bi ma doon sol ak kaala gi hmm. euh, dafa mujj dem ba mujj xonq coy hmm? loolu lu bizarre la lu bizarre la te la ma la ma yóbbee loola mooy biñ ma yóbboo campénal deux jours yu njëkk yi sama bopp bi dafa ko àttanut demoon naa ba daanaka xaw a jaaxle nontuma lekk sama xel na yar na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekkee ci tàngooru mhm. doon jëlee ndox di ko di ko sotti ci kawam bi mu demee ba mënatu koo sotti ñu ko koy sottil mhm. sama xel daj loola ma gaaw jël sama taala gi ak mbaxana mi tooyal leen mhm. takk ko ci bopp bi booba bopp bi boo laalee day mel ni dañ ci dóor xeer day metti day day tal day tar mm. mais bi ma ko ci fekkee benn fan ñaareelu fan ba yëgatuma dara mm. ma ne alhamdulilah moo tax diiru li ma nekk campenal maxana mi dama koy tooyal kaala gi dama koy tooyal mbub mi may sol dama koy sotti ndox mm. damay xooj ci ndox sol ci néeg boo xam ne yow rek a fa nekk waaye mbubb mi dana dana wow ci sa kaw ñeenti yoon ba juróom xam nga loolu lu yéeme la mm-hmm. liy wowal mbub mi lan la ma jàpp ci sama xel ne xam naa rayon yi waroon a dem ci sama yaram moom mooy far yam ci mbub mu tooy meeg kaala gu tooy gi hmm. loolu moom mbirum suñ boroom rekk rek rek rek rek rek la mbaa imaam sa wér-gu-yaram boobu ba tey amul njeexital bu ci yooyee am dooy toog tey ñetti ak gannaaw ngay yëg loo xam ne daawoo ko yëg balaa mbir mi di dal ci sa kaw waaw damay damay yéemu ndax gis nga bi may dem sama waa kër li leen tiitaloon mooy comme man dama daan sibiru ñaari ñaari yoon par at. Mm-hmm. loolu tiitaloon na leen trop te sama sibiru da daan métti. boo fa feebaree ñuy xalaat. ñuy xalaat mais diiru li ma nekk ci seen loxo sibiru ma. Mm-hmm. ñetti at. ñetti at loolu moom da man man lañu gën a yéem ba fii ma toog ak yow nii aw ma benn problème maa ngi sant sama borom bu baax di ko gën a sant tey ñaan nag sax ci cant ba bañ koy wuy mm-hmm. yii nag boo gisee ma di ko wax. Mhm. saa yu ma laajee ma sabat compte ci. Mhm. mooy dama xam ne li ma dal mën na dal ay xale yu bëri. waaw mën na dal yeneen i ndaw yu bëri. Mhm. ay mag yu bëri. bu boobaa ñu ne ah fii kat jaarale woon nañ fi du sànkam. déglu na déglu woon naa ko bañ koy torture mu jéemoon mu jëloon matuwaay bii ak matuwaay bii. moo tax yooyu dama koy wax pour ngir vulgariser ko. ëllëg kuñ dugal ci Euh, torture yu mel noonu. Mhm. mu jël matuwaay yu noonu te gën a wéeru ci boromam. Mhm. cosaan li lépp nag mooy wéeru ci sa borom rek. am na solo mhm. euh, ñetti at imam procès jaar na fii ñu àtte la euh, ñu bari it ñëw ca àtte ba déglu la ndax mën ngaa dellusiwaat ngir ñi nga xam ne jotuñu la woon déglu la nga fa wax dégguñu ko. ca lañ la doon laaj ak lañ la doon tontu ak na procès ba demek na mu jeexee. procès bu yéeme la ndax. gis nga keroog bi ñuy njëkk a def séance bu njëkk bi hmm. nga xam ne ki nga xam ne moo yor wàllu mbind mi liñ bind yëpp li juge d'instruction joxe yëpp mooy jóg jàng ko hmm. ñu kenn ku nekk ñu wane la tax ñu ñu téye ko hmm. accusation yi keroog man bi ñu may jàngal sama sama sama wàllu man dama toog toog ba ci kanam ma ne waaw est-ce que Aliou ndaw bi ñuy wax ak ji benn la est-ce que man la ndax man kii li wax xaw ma ci dara. Hmm? waaw da wutal nañ la sëfoor bu sant fay wutal nañ la ay barab yoo xam ne dem nga fa ci ay réunion yaa ko jiite bu yóbbu nañ ma fu ne ma jiite fa ay ay réunion. te mosoo dem. déedéet moo tax ma ne est-ce que kii kii li muy wax est-ce que man na jaawale wuñu Aliou Ndao yi. ndax jaawale wuñu Aliou Ndao yi <laughs> loolu mooy li ma jëlee njëkk yéen ci projet bi gis keroog bi ñu jàngee sama paar man ba nu ba nu fi. Hmm. xam naa ne leen ku fa woon tiit na ndax lan gravité accusation yi nga xam ne moom lañ ko ci ñëpp a tiit presse beeg ñëpp a tiit ñëpp presse beeg ñëpp tiit mhm. waaye man keroog laa gën a dal ndax xam naa ne yàgg yàgg dinañ ma taxaw loo wax la ma hmm. bu keroog yee insha allahu ci ndimbalul suñ borom mu bu ma bàyyee sawam xel mhm. ak ndimbalul ñii nga xam ne ñoom laa bokkal dossier bi muy avocat yi te xam naa ne ñu ñu aptu lañ mhm. te li ma gën a yéem na ci avocat yooyu dañ doon liggéey béné bénévolement vraiment seen mbir yéem na ma. Hmm. ñoom Babacar Ndiaye ñoom Maître Cissé ñoom Maître Sarr ñoom. Eh, ndeysaan man mënuma jàpp si. ñooñu ñëpp fayoo leen. dara. Hmm. bénévolement loolu nag nit ñi dañ ko raxam waaw loola jar naa wax. vraiment benn pool d' avocat boo xam ne. ak seen qualification professionnel na mu na mu màggee. Hmm. ku ci taxaw wax rek nga xam ne kii ci ci ci xam-xam lay def. non yéeme na waxuma la fayoo leen waaye gis nga am na ci ñoo xam ne li ñu def ci man. Hmm. jël seen alal di ko def ci projet bi suñ la ko tuddoon nga yéem. Hmm. wallaahi ndeysaan waaw ñoom daal mbir mi ma ca laa xamee nag ne Sénégal gii euh, am na yaakaar ay jullitam yi fi. am na nit ñu baax moo tax man aw ma déception de. Hmm. ba tey jii dama gëm ne Sénégal incha allahu mën naa delluwaat ci loxol lislaam mën na delluwaat ci loxol njub bu soobee yàlla. ndax cadre supérieur yu toll noonu yor xam-xam yu tool noonu xëy a mën a jël benn engagement. Mhm. ci benn projet xam ne kii victime la dañ ko bëgg a victimiser. Mhm. jël seen temps jël seen xam-xam jël seen am-am jël seen man-man lépp def ko ci. Mhm. ngir yàlla ñooñu kenn sikki sàkkawul seen jëm yàlla subhaanahu wa taala. su defee kon léegi ci gàttal projet bi. nit ñi noonu lañ ko toppee diggante ñeme activiste yi diggante ñeme. ñoom Karim Xrum Xax ak ñu leen doon jàppale nitu dëgg yi ñoom Omar Sarr mhm. fa tabarakallah ku lim jum bëgguma lim daal dama dama bëgguta lim waaw ndax boo limee rek da nga jum waaw léegi kañ lañ la tàmbalee nag yow laaj kañ kañ lañ la jox kàddu voilà bi ñu demee nag ba euh, pare ci jour boobu dañu dañu ne léegi suñu mbir dañ koy aj yàpp kii ma nag malheureusement badi yi mhm. kii mu ko ne daal ak lu mën a xew rek woo nañ ma taxaw naa laaj nañ ma juge yi déglu nañ ma heureusement ki ñu ñu ñu doon déglu ñoom itam ñu ñu ñu wute nañu lool ak ñu doon bind ci ñun. Hmm. waaw lool ak ñu doon bind ci ñun. justice bi am na loxo lu ko ñu muus di ko jox ñu ko neex waaye juge yi nag am na ñoo xam ne kenn mënut leen a teqale seen ngor. ak seen diina. Hmm. heureusement tase nañoo ak juge yu mel noonu ci procès bi. ñu taxaw taxawaayu gor taxaw taxawaayu patriote euh, bëgg seen réew bëgg seen doomi réew xam ne lii ay sosi kese la vraiment ñu àtte mbir mi teg ko ci kaw yoon ñoom juge euh, Samba Samba Samba Touré la de yaakaar naa hmm. Samba Kane Samba Kane ak ñoom euh, juge Diop ak seen ndaw fàtte naa tur ñooñu daal fa tabarakallah jazakumullahu xeyran yàlla yàlla fayal a yokk ngor gën leen a aaral seen pas-pas mhm. ba kenn leen mën a corrompre ji ju yàlla nañ gën a euh, bi ngay ñëw ci procès bi yaa ñu la doon def dakkul wala euh, euh, arrêté woon nañu ko bala ñu lay tàmbali àtte mosul arrêté mosul arrêté ba jour bi may génn ah mosul arrêté ba jour bi may génn loolu ma yem la injustice saa yoo delloo ca kaso ba rek yëf tàmbali. tàmbali non doy na war loolu wax dëgg yàlla euh, ñu ngi koy def nag au nom de tous les sénégalais yow moomu. Mm-hmm. ak man ñii di wax ak yow. ak euh, suñuy njiiti diina suñuy xalif généraux. Mm-hmm. population bi yëpp ci seen tur la ñuy mënee acte mel noonu. Mm-hmm. loolu nag dafa dafa nekk loo xam ne dañ ko war a xam. Mm-hmm. bu ko defee kenn ku nekk xam ne ah lii ndekkee mu ngi am ci sama réew. Mm-hmm. am na nag loo xam ne constaté naa ko ci barab ba la ma njëkkoon a jaar muy rëbës. Mm-hmm. wallaay ndeysaan dañ ma gis xale yoo xam ne boo waxtaanee ñoom dañ naan la ñu néeg yi nekk la nekk ci nombre bi dafa surchargé ba ñoom amuñu possibilité tëdd ci suuf sax. ñii dañuy taxaw ñii toog. ñi tëdd ñi ñi alterner bu ci kanamee ñi taxawoon toog mais vraiment ci ay conditions yu inhumaines hmm. te loolu yëpp ñoo ngi koy def ci turu sëriñ si nag yéen sëriñ si yëpp na ngeen ko dégg hmm. seen tur ci la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu yéen taalibe yi ci seen tur la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu yéen jàngu bi yéen bois sacré bi ci seen tour la ñuy defee acte yu ñaaw yooyu ndax yéenay sénégalais yéen a délégué seen pouvoir jox ko ay nit ñuy def ay nit yu mel nii ba tax man damay wax ne ñoom Ibrahima Sall ñooñu seen mbootaay gi bis hmm. dana ñëw incha allah yaakaar naa ñu bëri danañ ci jàpp euh, de passage maa ngi maa ngi méttitlu di di di sama mbokk yi nga xam ne ba tey jii ñu ngi ci kaso bi hmm. ñu woon leen terroriste ak ñi nga xam ne ñëpp ay victime lañ hmm. nekk ci biir kaso bi de passage nga baal ma ma ma ma ma ma ma sawu leen coono yi nga xam ne moom lañ nekkee ci biir kaso yi te malgré loolu yëpp ñu nga garde seen diine ndeysaan am na ci ñu ñu wax ne nag la leen tuumaal moom fu wér la tegu de. waaw man de wax dëgg yàlla ñoom ak lu mën a xew. Mhm. xaw ma leen. Mhm. ñun ñëpp xamante wuñu. xamoo leen kon. déedéet am na ci daal xale bu ñuy wax Baye Sall. Mhm. maag moom sunu kër yi benn la moom bàyyi nañ ko am na ci ku ñuy wax Ibrahima Aan ci sama jàkk lay jullee ba dem ba ma ji passé rek ñoo bokk julli. ñoom dama leen a xam bu baax am na ci xale bu ñuy tuddee Maxtaar Jaay na ñu ne maa ko jàngal. Maxtaar Maxtaar Joxaane Joxaane waaw kookoo ci bokk na ci ñi ci gënoon a fës sax. voilà ñu ne sama taal bi la maa ko jàngal. ay neen yi kese la. Hmm? ay neen yi kese. ñi ci des nag xaw ma jege na far ñoom ñëpp foofu lañ xamante ci biir. Hmm. ñoom Alioune Badara Sall ak ñeneen ñi ci des yëpp. foofu lañ xamante moo ne defoon ay link de ci seen diggante ba wax ni. waaw waaw ñoom ñëpp nee nañ fii lañ jaar ci hmm. jàmbur gii nga may wooyee maa ngi jàmbur actuellement ci tool bi. fii lañ tuddee woon ne mooy camp d'entraînement bi bu ñuy dem fi la ñuy jaar. <laughs> mooy base bi mooy base bi. <laughs> yéeme na trop maa ngi leen di masawu coono di masawu nag sunu mbokk ndeysaan Pape Ndiaye. koy mm-hmm. seet. Mm-hmm. di ko muñ loo ndax moom itam jaaram foofu man dama naan baax na de Pape Ndiaye boobu. Mm. jaaram foofu baax na lool ndax gis naa ne xale la boo xam ne bu. bëgg réewam. Mhm. muy xeexal réewam. Mhm. buñ ko terroriser moom itam jaarale ko ci kaar yu mel noonu. bu mhm. génnee dana gën a xam combat bi. et euh, importance bi am. dana gën a dëgër. dana gën a dëgër incha allah. alors ñu des ba tey ci procès bi imam euh, keroog ba nu la dégloo ba yëf yee jeex ba nu ne ba la la tuumaaloon yëpp rot ban yëg-yëg nga am. yëg-yëg bi ma njëkk am mooy gëm ne suñ borom ma aaroon yonent yàlla Ibrahima ca sawara wa ba tey jii moo fi nekk ngi aar ay jaamam te dafa jóg mukk yëg-yëg boobu moo gën a dëggu ci sama xol keroog ñaareel ba ma amaat yëg-yëgu euh, yëg-yëg boo xam ne bu bees la bu gën a màgg ci sama xol ba fii ma toll nii day gën a màgg ci sama xol mm-hmm. mooy appréciation boo xam ne apprécier naa ko xolu maanaam taxawaayu sénégalais yi mm-hmm. sénégalais yëpp nag mm-hmm. vraiment ci engagement ak détermination ngi yàq seeni nelaw yi gëdd seeni i projet bi dafa duré lépp ñuy gëdd seen i di ko ci def mhm. lu mu sedd sedd sedd ñu ngi ñëw am ñaareelu yëg-yëg moom mooy boobu mhm. yëg ne am nañu type de citoyen boo xam ne yal na yàlla gën leen a sàmm gën leen a aar te yëg-yëg boobu mu gën ko fortifier ci seen i xol mhm. dañ mën a nekk ay dëggi dëggi patriotes yoo xam ne danañ taxaw incha allah pour l'injustice ñu ànd ñun ñëpp nettoyer ko fi jëlee ko fi wàccee suñuy responsabilité suñ digganteek euh, am la wa taala hmm. waaye suñ digganteeg askan bi hmm. waaw am naa it nag yëg-yëgu ci ne hmm. euh, ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu <coughs> métier avocat ba tey ji am na ci ay gor juge yi ba tey ji am na ci ay gor yii yëpp yëpp bokk na ci li nga xam ne dajale naa ko yéeg ko. yéegandoor ko mm-hmm. yaa ngi doon xaar ñu bàyyi la ragaloo woon ñu teewaat la euh, ci loo xam ne xëy na yi teguwul fenn gannaaw toon nañ la ba ba ba yëfi yegg foofu. waaw parce que ci la tooñ xëy xëy jëlee la sa kër. Mm. kooku mënoon na laa ci avis. yaa ngi doon xaar loolu it. bu bu man xaaruma lenn lu dul dogalu suñu borom. Mm. dogalu suñu borom rek ndax xam naa ne jaam day bëgg ñoom loolu moom mën nañ ko moom ci seen pas-pas ndax poñ bi métti na hmm. waaye xam naa ne yàlla day bëgg euh, suñ borom di bëgg maanaam euh, jaam bi jaam day bëgg borom bi di bëgg waaye nag si boobaa bëgg-bëggub suñ borom mooy décidé hmm. euh, bis pour sa laaj bi dafa ma fàttali bis boo xam ne ndeysaan ca cantonal hmm. man directeur bi sant Dia juge Samba Sall ndeysaan yal na ko yàlla yërëm ñun ñëpp ñun ñu woolu ma ma ñëw moom Samba laaj ma ne ma waaw ndax amuloo dara looy tawat benn doléance benn càkkutéef ma ne ko aw ma benn càkkutéef bu may bu ma leen di jox yéen. Hmm. benn càkkutéef bu ma leen di jox mu ne maa ma ne ko déedéet aw ma ko sama càkkutéef yëpp ci loxol kenn ki laa ko teg. Hmm. muy Allah subhanahu wa ndax jaam bi doo ko jëlee këram jëlee ko ci njabootam tooñ ko ci loo xam ne moom wér na ko ne dañ ko tooñ. Hmm. andi teg ko ci barab di ko laaj ne ko ndax amoo looy ñaan <laughs> man aw ma dara lu ma leen di ñaan ki may ñaan kenn la muy allah subhanahu wa taala. mu tontu la lan. mu ne ma waa baax na léegi kon mën ngaa jóg benn hmm. mu gën a amaat sant sama borom subhanahu wa taala. Hmm. yal na ko yàlla yërëm. amiin ala kulli xaal mbir la moo xam ne euh, dund naa ko dund ko sama mbokki sénégalais yi. Hmm. ñi ci biir réew mi rawatina ñi ci bitim réew nag diaspora bi mm-hmm. gis nga ay nit ñu bëree ngi ci biir biti biti réew mm-hmm. ngir ñu naqari leen ci anam goo xam ne ñoom ñoo doon dagg see seen i ñaar dërëm seen i juróomi dërëm seen fukki dërëm di dundal daara ji am ñoo xam ñu ngi fii ci biir réew mi buñ la waxee somme yañ doon yóbbu ca biir daara ja pour pour xale yi dund mm-hmm. daf la jéem waaw sa waa kër ak waa daara ja Euh, imaam naka ah. la dundee xew-xew bi yow dëgëroon nga waaye ndax ñoom yëf yi méttiwul woon ci ñoom. mënta ñàkk euh, métti ci ñoom ndax jaam léegoo léeg euh, faaw rek la koy dal di métti ci ñoom waaye nag woyof na ci ñoom ngir lan ñoom ñëpp alhamdulilahi rabbil alamina dañ leen a yar ci diina. Hmm. te xam nañ dogalu borom bi tabaraka wa hmm. moo tax ñoom itam yëgal ne de endurance bi nekkoon ci man moo nekkoon ci ñoom. Hmm. waaw amu yoon benn problème. soxna seena nga xam ne moom laa la wax ne la di kaa jóge daanaka teqalikoog sabam mm-hmm. xam nga mag la te itam euh, mag moom dafa am lu luy luy manqué ci moom mm-hmm. wala gisam yal na ko yàlla yërëm euh, ñu ñëw imaam nag tey ci mbirum euh, terrorisme tey ci àddina ak ci réew mi jamono yi ñu weesu assemblée nationale voté na ab loi boo xam ni euh, neenu dafa gën a dëgëral daan yi nga xam ne moom la ñu jagleel ñuy def terrorisme ak ñi nga xam ne xëy na ñooy def jëf yu ca aju tey ni Sénégal di gérer mbirum terrorisme yow en tant que sénégalais en tant que nitu diine ndax terrorisme it dañu koy lënkale ak diine yenn saay euh, surtout islam euh, noo ko jàngatee noo ko noo ko gisee euh, doxalin woowa. waaw loi bi ma fàttali histoire ndax terrorisme pour la première fois comme ni ko benn philosophe grec gréco-romain waxee muy Philippe Joseph Salazar Philippe Joseph Salazar nee na bu ñu doon remonté mbirum concept lu euh, mu kii terrorisme dafay ñibbi ci euh, cent dix sept maanaam deuxième siècle hmm. cent dix sept ak cent quatre vingt nee na foofu lañuy ñuy yóbbu mbirum terrorisme te it nee na mbirum terrorisme boobu ab jus juriste romain boo xam ne ñu ngi ko doon tuddee Pomponius ci deuxième siècle entre cent dix sept et cent quatre vingt Pomponius moom moo njëkk a génne concept terrorisme juge la woon. Hmm. nga bàyyi xel tam da nga ma laaj problème mu loi. Hmm. moo tax problème mu terrorisme ak loi yi yàgg nañoo lëkkaloo. Hmm. tey ñu ngi ci deux mille. vingt concept yi mu ngi judd woon cent dix sept jëm cent quatre vingt ci moment boobu ci la terrorisme njëkk a judd ci àdduna bi. benn ñaareel bi mooy romain yi eh, dañu doon utiliser kàddu googu pour euh, terroriser mbooleem ñi nga xam ne dañoo wute woon maanaam seen gis-gis dafa wute woon ak loi yi ñu doon appliqué ci seen réew hmm. léegi nag pour ñu. daytaluloo leen moo tax ñu doon jëfandikoo erreur ci seen kaw pour wane ne ñii kat dañuy enfreindre les lois gis nga loi kon loolu benn aada la hmm. benn habitude la romaine bu fi yàgg lool soxna fi terrorisme comme ci loi nga ma laaj hmm. dafa am ñaari eh, dimension yoo xam ne boo gisee état yooyu doon ko jëfandikoo moom lañ ci jubloon bi ci njëkk mooy dimension éthique hmm. buñ jëfandikoo terreur ba terroriser nit ñi hmm. mu am effet dissuasif d'accord pour nit ñi ragal jëltu gannaaw hmm. dootuñ ñemee wax loo xam ne dafa waroo ak li état bëgg ñaareel bi mooy dimension étatique pour imposer sa souveraineté ñaar yi ñoo taxoon a jóg terrorisme démb ci romain yi ay cent dix sept quatre vingt bi ñu ñëwaatee ba ci ay mille sept cent quatre vingt quatorze te mooy gannaaw bu révolutionnaire yi jëlee état maanaam instauré li ñuy tuddee la laïcité hmm. mille sept cent quatre vingt neuf mille sept cent quatre vingt neuf ñu def quatre vingt dix quatre vingt onze quatre vingt douze quatre vingt treize quatre vingt quatorze hmm. mille sept cent quatre vingt quatorze hmm. ci la ñu indi waat pour terroriser les contre-révolutionnaires nga gis ne kon aada bi romain yi la woon démb mhm. waaye tey layit yi la républicain yi la mhm. te xam nga ne ba tey république boo koy toppaat cosaanam romain yi la mhm. nga gis ne kon histoire dafa delloo si waat boppam mille sept cent quatre-vingt-quatorze loolu boo ko toppee nag moo ñëw ci lii nga laaj léegi muy Eh, mbirum sunu ñaari loi yooyu bala ma cee ñëw. Mhm. dama lay delloowaat ci benn xutba boo xam ne defoon naa ko tuddoon ci ñaari gaay mhm. muy Jean-Yves Le Drian. Mhm. ak Archie Patrick bi nga xam ne mooy ministre euh, français de l'Europe et des affaires étrangères. muy Jean-Yves Le boobu. Patrick boobu mooy premier ministre ivoirien ñoom ñaar dañoo. ins maanaam dañoo tadd Chine tadd Chine moo toll ak ñuy tuddee inauguré benn institut wala nga tuddee ko sax académie mhm. internationale pour la lutte contre le terrorisme mhm. loolu la ko jiitu mooy gannaaw boo yégee ci feer wala passé mhm. ne français yi dañ leen reeteet ci suufu Mali population yi jóg reeteet leen war leen ne soxlaatuñ leen ci seen réew ba sax président français bi amoon dogu ne day génne kon moom ay euh, force am. Hmm. muy Barkhane. mooy sentiment anti français bi tàmbalee juddoo euh, même ba Burkina Faso. partout partout partout partout hmm. en Afrique. Hmm. partout fi la ne tey fa tabarakallah panafricanisme boo xam ne dafa judd ci biir Afrique. déclenché nañ ko mu ak tombé nag jamonoy te li ñuy tuddee réseaux sociaux yi. nga xam ne moom la président doon tuddee ñuy kacci kacci. <laughs> loolu kanam la jëm incha allah. ñooñu di kacci kacci. bu soobee yàlla espace démocratique bu libre boobu. Hmm. danañ ko jëfandikoo pour nettoyer waat Afrique te ñëpp ñi nga xam ne dañ ko bëgg a jëlaat euh, dugalaat ko ci ci goutte. Hmm. dugalaat ko ci euh, loxo pour ñu ñu téye ku nekk otage yi ñooñu di kacc kacc dañu am objectif bu ñu am. mafia kacc kacc. <laughs> mafia kacc kacc dégg naa xale yi di ko wax <laughs> léegi ci biir loolu ñoom ñaar ñooñu. dañu hmm. inauguré institut bi. Mm. dama bëgg lënkale loi bi ak institut bi. Mm. wala académie internationale bi. Mm. ki nga xam ne mooy euh, Jean-Yves Le Drian. dafa invité tous les acteurs de la région. Sénégal a ngi ci biir. te xam nga ñoom français yi ñooy suñuy kilifa. ñoom ñëpp daf leen a invité ne nañu s'approprier pleinement outil exceptionnel bii nga xam ne mooy. li ma tudd léegi muy académie internationale pour la lutte contre le terrorisme. Mhm. gën a intensifier encore seen engagement commun contre les groupes qui les menacent. Mhm. France nag saa yu waxee groupe qui les qui les menace mu ngi ci jublu ñi nga xam ne bokk ñoom ñoom pas-pas. Mhm. parce que France dafa nekk dictateur. dictateur boo xam ne dafay jëfandikoo dictature sur le plan doctrinal politique économique et jàpp na ne moom France mooy xolu adduna nu mu gisee na la ñëpp war a gisee nu mu waxee na la ñëpp war a waxee nu mu habitué woon na la ñëpp war a habitué woon lu mu tëral comme loi moom la ñëpp war a adopté moo tax sax ba tey jii nga xëy xëy gis saa yu yuñ ne macro lañ koy wax de. Mm-hmm. Macron yëngatu na rek comme gis na bi mu yëngatoo barkaa ci démb <laughs> ci wàllu feebar bi ñuy tuddee mak nu mu teeti covid 19 coronavirus mhm. covid 19 ba ma ko digloo ba pare laa ne ah na Sénégal waajaat nga xam ne kat ak sikk am <laughs> ñii nag nga xam ne ñooy sunu lakkali it euh, lëjaloon sunu maam yi lëjaloon Cheikh Ahmad Bamba exilé woon ko rahimahullaahu tabaaraka wa taala lëjaloon ñoom Maodo Malick Sy ci gàttal lëjaloon ñoom Cheikh Omarou Fouti ba sax ñu jiitu ñooñu lëjëloon fi ñoom Cheikh Abdoul Qadir Kane mm. eh, ak ka ko jiitu woon di Thierno Souleymane Baal mm. ay jàmbaari diina yoo xam ne ñu laa ci mën a tudd waaye ñeneen ñaa nga fa mm-hmm. bëri fi loolu fa tabarakallah ña leen doon lëjël mm-hmm. ngir dañoo bokkul ak ñoom pas-pas seen gisin moo fi nekk ba tey moo tax may def loo attention bu baax sénégalais yi mm-hmm. ak africains yi ci yi parce que institut international bi ñu ngi ko samp fële ca Côte d'Ivoire man li ma gën a yëm sax mooy eh, suuf su yaatu su rëy suñ ko jox. Hmm. ak nag liggéey bu rëy bu bu di di a def ci sunu diir num mu ci eh, su région bi. Hmm. ndax recolonisation moo leen tax a jóg suñuy haut fonctionnaire ñoo leen di former foofu ca num mu ci ba académie ba. Hmm. suñuy haut fonctionnaire suñuy officier supérieur ca daara joojee lañ leen di former maanaam ca lañ leen di formaté takkal leen ay ay gis-gis yu niroog na France di gisee mbir yi suñuy haut fonctionnaire suñuy officier supérieur suñuy magistrat malheureusement yii yëpp nga xam ne ñooy xoolu réew di ruufu réew dañ leen bëgg léegi di leen dajale foofa te institut international boobu la académie internationale booba di leen fa jox vision ci mbir yi yëpp bu ñu fa génnee nag euh, ñoom ñoo war a saytu réew yi sur le plan administratif hmm. juridique politique hmm. militaire doy na waar imaam daanaka ñaari simili moo nu dese euh, laaj bu mujj bi mooy doon ndax luwaay yi yëpp tam gisoon ni euh, cible principal bi mën naa doon ñiy daawa ñu mel ni yéen nga xam ne fu nu toll ñu ngi euh, fàttali te wax nga ni léegi France euh, ñi mu gën a sonal mooy ñu bokkul ak moom pas-pas yéen nag rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a gàddu kàddu borom bi subhaanahu wa taala di ko tasaare ndax gisoo ne cible bi yéen lay doon. waaye ñooy cible principal bi donte nag am na ñu bëri ñoo xam ne Ousmane Sonko mooy cible principal bi. <laughs> ak opposition bi. Mm-hmm. ak activiste yi ñoom ñëpp ay cible lañu. Mm-hmm. ba ci yéen ñooñu sax nga xam ne yéenay bind ndax am na benn article dix neuf boo xam ne ci code de la presse tëkku nañu leen fi yéen la <laughs> moo tax kenn muccut ndax ñii di borom tur yi ñaari tour yi nga xam ne ñoo lëmbi àdduna bi eh, daa doaat yooyu nga wutul wax ne nga xam ne ñoom ñooy yëngatu ci wàllu diine bul fàtte 23 mai dañu woon nañ fi à l'échelle nationale 23 mm-hmm. mai ci sunu cinq département tàpp woon la criminalisation de l'LGBT gis nga loola loi bi dafa ñëw pour jox leen réponse wax leen ne waxuñ criminalisation waaye yéen ñooñu sax jóg naan dañ leen a war a criminaliser hmm. yéen ak seen bopp bu ngeen waxatee ci ñoom ay terroriste ngeen hmm. kon réponse la hmm. waaye nag jàpp naa ne niñ ko jàppee ak niñ yaakaaree ne na lay yombee <laughs> dana soriyo loolu parce que sénégalais yi léegi eh, alhamdulilahi rabbil alamina la leen daan teqale teqalee tut leen yeewu nañu ñun lañ daan mën a jógee rek fu leen neex ñu diaboliser ma Mamadou Dia ma diaboliser ñeneen ak ñeneen yàq seen carrière booba réseaux sociaux yi amul. Mhm. tey nag alhamdulilah rabbil alamin jeunesse bi mag ñi suñ classe bi nga xam ne tey ñooy mag ñi. Mhm. heureusement am na lu ñu fekkee ci démb mu bëri lool. Mhm. bokkaat ak ndaw ñi seen jamono. kacci kacci gi nga xam ne moom la ndaw ñi jëfandikoo ñu bokkaat koog ñoom. <laughs> ah kon yaa ngi ci biir kacci kacci gi. <laughs> maa ngi ci biir ba sama 24 heures sur 24 maa ngi ci. <laughs> jërëjëf ndax ay activités yu suñu borom andi la jërëjëf. daa waxtu bi ko foofu rek di wallaay bëri na leneen lu ñu mënoon a waaye yoon yemul ci benn incha allah daanu amaat euh, yeneen jotaay yoo xam ne ñu ci wax euh, yeneen ndax itam ku actualité yitteel nga euh, ñu ngi lay gërëm bu baax Imaam Ndao mbégte mu rëy laa amoon ci waxtaan ak yow ñu lay mm-hmm. ñaanal yàlla dëgëral taxawaay wi yàlla itam taxaw daara ja ñu sant la lool itam ci li nga nangoo partage ak ñun wax ñu yu bari yoo xam ne xëy na mënoon nga ko dencal sa bopp démb ak mm-hmm. tey amoon naa mbégte lool dalal la ci imaam Alioune Badara Ndao. Fatou Thiam Ngom jërëjëf Thiam ñu ngi lay jërëjëfal di jërëjëfal euh, rajo bi ngay liggéeyal. Mhm. di ñaan borom bi tabaraka wa suñ borom euh, dem ba def ko ay télé yu bëree bëree bëree bëri yaatal seen. activité ci euh, réseaux sociaux yi. amiin ba campagne de sensibilisation bi nga xam ne tey Afrique soxla na ko. Mhm. ngeen gën mën ci def seen loxo. amiin amiin combat yi jóg nañ ko. ak ñi nga xam ne ñooy doxaat yi ngeen gën ci mën a def seen loxo kattan la yal yokk amiin asalaamaaleykum waaleykum wa barakaatu ñu doon dalal ci démb ak euh, ñu def ko ci téléphone waaye na macha allah li mu ci wax itam yu bari du ñàkk mën naa dimbali képp koo xam ne ëllëg nekk nga ci situation yu mel démb ak tey bi mun ngeen ko teeluwaat ci réew mi officiel mooy suñu chaîne ci youtube ñu dégg leen daje beneen waxtaane leneen ak keneen gërëm jaawo jàlloo mi newoon ci jàppandal gi Fatou Thiam Ngom la woon ci kàddu